mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax eh, di am mbégte teewaat fi ci ndimbalu sunu borom ak kàttanam di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte nag mu rëy rëy teew fii di masawu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu El Hadji Modou Diouf eh, mi nekk ci régie bi ab Ablaye Top Sanjogu eh, Sonyibou Assane maa jigéen suka Aïcha ñu ngi nii ñëpp ba ci Modou ak euh, ñoom Ousmane ah. ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen jaajëfal di ñaanal ñëpp jàmm ni ñu koy defee saa su ne ci trente minutes euh, chrono ci solution info TV ñu ñëwaat di ko def ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam ndaxte nag euh, fekke gi boo koy def di fawaat rek war a sant yàlla parce que am na ñoo xam ne seen yéene bu matoon mun na doo fekkee. parce que ñu ngi wër ci internet bi di wër ci YouTube bi di wër ci euh, kii di Facebook beeg lépp ñu ngi koy wër seen liggéey yépp mooy xool nan lay def ba jàpp ma sàmb wala ma demb ci réew mi pourtant réew mi am na yeneen priorité ci dundunu askan wi réew mi am na yeneen ko mettit ci nu askan wi loolu tax ci kanam incha allah bi fi xajee dinaa ñëw ci benn list boo xam ne mooy ñin jot a jàpp ci kaso bi ëpp nañ ay trois cent gars na dun ay prisonniers politiques ak ñoomin seen mais après bu ñëwee ci seen tour la leen wax ni ñii lan la ñu def ak lan la leen di toppee ndaxte bu dee nit ki toppewuñ ko faat bakkan soppewuñ ko alalu réew mi soppewuñ ko ni dafa yàkkataan jigéenu jàmbur kooku tey jii boo nee du prisonnier politique te nga jàpp ko ndax ay activité politique yoo xam ne da koy mëne soit mu koy wax wala mu koy jëf kooku mun ñu weddi ni kooku du prisonnier politique kon waxtaan wi tey jii ngeen fas yéene ci ànd ak Omar Bun Khattab Gueye dinañ waxtaane dialogue bi waxtaan ci Sonko Mimi ture mi ma tuddee couple gagnant wala la couple gagnante waaw Sonko Mimi Touré lu tax ma tuddee la lool dinaa ci ñëw ñëw dina ñëw ci dialogue bi ak taxawaayu yeewi askan wi ak ñenn ñoo xam ne dañ ne dañuy wuy ji dialogue bi dinañ ci ñëw dinañ ñëw aussi tey ci lii xaar Ousmane Sonko ci kanam mooy nee na le huit ñu ne la seize mu laaj taxawaay mais aussi mu laaj fulla ju mat ak fayda ju mag comme ni ko Ousmane Sonko defee ci génnem bu mujj nga gis usmaan Ousmane Sonko très déterminé koo xam ne léegi dafa egg ci caaxaan faaxe dëgg des dem ba egg ci désobéissance civile civique maanaam léegi yoon ni muy doxee ci réew mi moom dafa gis ni gisatu ci boppam ndaxte fukk magistrat ñooy daje rek am seeni i gis-gis ak seen i bëgg-bëgg di ko doxal ci nit ñi waaye teguñu ko ci yoon mu ne nag comme ñoom dañuy def lu leen neex Ousmane Sonko ne man tamit damay def li ma neex ak li ma yoon may moo tax mu dem ba ca frontière Gambie ba wax ni maa ngi nii ginnaaw ba ñu ko defee su contrôle judiciaire na ko doo génn réew mi léegi dem na ci beneen territoire mooy bu Gambie loolu nag mooy wane ni Ousmane Sonko mu ngi teg ay jéego di yéeg te loolu usmaan Ousmane ko def lu tax kenn mënu ko ci topp ci dara mooy dossier bi mu demee ba dugg ci yoonu àtte rek ñu jàpp bi kon digganteem ak Adji Sarr bi taxoon yóbbu ko ci lii di. Euh, contrôle judiciaire jàpp nañ àtte bi kon lépp lu ñu ko tegoon ci contrôle judiciaire dama waroon yëkkati passeport am jox ko na ko léegi yaa ngi noonu fu la neex demal dikk ba procès bi ñëw nga teew loolu tax kon Ousmane sonk li mu def yoon mooy li ko may teg ci même bu ko yoon mayul woon bu nees tey jii Ousmane sonk def na ko dan naan Omar Sarr defoon na ko te pourtant Omar Sarr bu parti démocratique sénégalais jamono bi mu koy def jamono boobu opposant la jël na fi gaal dem Mauritanie ñëwaat te boobu dafa nekkoon sous contrôle judiciaire Omar Sarr moomu tey jii liberté provisoire la yor bu ma juumul ma ngay siéger ca conseil des ministres bu Macky Sall te pourtant ba léegi am na lu ko yoon di toppee moom kooku la di Omar Sarr te yëgugunu fu mu ko setalee beneen bi ci topp mooy Ousmane Ngom dañ ko topp ci yoon na bu mu génn réew mi Macky Sall gàddu ko jëm ak moom Guinée génnee ko réew maanaam Macky Sall foofu moom moo may. kii di Ousmane mu jalgati yoon kon tey jii nagam Macky Sall moo mën a jël ay nit yoo xam ne yoon daa am fu mu leen yamale woon mu jël leen bay lang ñoom tey jii bay jël Ousmane di ko génnee réew mi Omar Sarr génn réew mi dem dikkaat te dara du ko ci fekk te ñooñ ñëpp ëpp ñu sañ-sañ Sonko ko fulla ëpp ñu ko fayda ëpp ñu ko fit kon li Ousmane Sonko def dakaa yéex a def mais lu jaadu la léegi nag garsa garsa li ñu doon wax la waaye Ousmane Sonko tey jii dafa egg ci di ko jëf jëf bi nag du yor xeer sànni du yor dara waaye nag fullaak fayda ju mat sëkk lay wane ngir mën a jàkkaarloo ak ñoom kon taxawaay bi mu am ginnaaw korog ba mu génnee loolu nag li ko indi mooy usmaan Sonko fi ñu ko sës ak fin ko yóbbu moo sori ndaxte nag bu nee mbiri aji Sarr ñuy dem ba jëmmi jamono ñu indi mbiri mambay ña ñu ne nan def appel ci diirug weer may ñu ko weer ñu dugal ñoom seen appel jàpp le huit nit dinañ ko atte ci loo xam ne tey jii yoon àtte woon na ko ba ne bu ñu bëggoon jàmm naam Ousmane Sonko àndu ci àtte bi ak 200 millions yi waaye bu bëggoon jàmm dañuy génn ci loolu waaye tey ji li ñuy viser mooy éligibilité am maanaam bokk ak ñàkk bokkam ci élection 2024. kon dafa laaj taxawaay ak fulla ju mat xam lan mooy man li may jaaxal yenn saay da gis ñi bëgg Ousmane Sonko wala ñi koy jàppale naan sañuñu ko daal non sañuñu ko nguur gi ñemewu ko teewu ko mun mu mënuñu ko tee bokk élection loolu ku xamul nguuru Macky Sall wala ngay doog a wax ci politique yaay wax loolu ñii amuñu kersa des fois dama koy faral baadoo bu jibee gàcce fekk taabu ca du am jàmm ñoom luñ sumb fekk demuñu ba mbëkk miir bi du ndellu ginnaaw du seen habitude Macky Sall 2012 ak tey ji du 2000. 23 lay soppi képp ku jim na Macky Sall dina soppeeku ci ni muy doxee ak ni muy jëfalante ak ay adversaire am yaa ngi nax sa bopp man mii di wax ak yéen jamono bi Macky sàll taxawee ci Covid bi woote man dama ne leen dafa nekk jafe-jafe waaye gëmu ko tey ji histoire jox na ma raison plateau ba mu ko doon waxee ci tàkku Show daan ma doon kekkekkee ak di ma ree ak di ma mokkee tey ji kenn du ko defati ndaxte dama njortoon ni lii xew tey dina xew ay weer lañ ci teg ñu dugg ci weeru mars deux mille vingt et un mbiri aji saar taxaw tey jii fépp fu mënoon a jël Sitor nduur dem ba di ko setal naan dañ koy jiiñ ba Sitor am fitu naan day porter plainte ay Gabriel Kanak ay association des femmes juristes ak ay damboj maanaam Sitor Ndour mi wanoon courber l'échine def profil ba am fitu toog ci tele yi ak liñ ko fi tuddal yëpp am nag amul ay certificat médical génn ci ay test génn ci lu ne génn ci waxuma moo def de Sitor nduur am sañ-sañu toogaat jàkkaarlook sénégalais yi ci koo xam ne tey jii nañ ko waroon a teg tribunal xale bi taxaw ñu àtte ko àtte ñu xool lan la def ak loolu bu dee xale bi waxul dëgg ñu ne xale bi waxul dëgg ab juge sañ ne kii di Sitor nduur lañ koy jiiñ defu ko tey jii loolu ñu may Sitor nduur ñu ne danga koy xañ kii di usmaan Sonko mooy Ousmane Sonko moom dinañ ko yóbbu ci kanamu tribunal mu toog Adji Sarr toog parce que ñi naan Ousmane Sonko ay ay awokaam jotaguñu lii jotaguñu lii jotaguñu li mais ñaata yoon lan fi jalgati ñaata yoon lan wër ndomba ay avocat dem def lu leen neex kon bañ a nalaw bañ a yàndoor mais aussi bañ a bàyyi ñii ci li ñu bëgg. ndaxte nag bu dee yoon rek la ñuy àttee nanu àttee parce que man mi tey bu ma nit tooñoon wala mu sàcc wala mu def ma ci yoon laa jëm gëm naa yoon mais yoon aussi tamit il faut mu tegu ci yoon mais lan moo fi ñor ban koy màcci ñu ne Ousmane Sonko le huit le seize maanaam patam patame ak gaawantu boobu le te wolof Njaay dafa ne gaawantu ak yàkkamti buñ juree doom rëccu lay jur lay tudd te ji gaawantu ak yàkkamti bi lan la mën a jur kon détermination bi ak Ousmane Sonko parce que man yàgg naa dégg Ousmane Sonko de mais ni mu waxee ci bu mujj bii te dafa egg ci caaxaan faaxe dafa egg ci dëgg des mais aussi dafa egg ci cooki fin cooki fin nag bandi cooki fin lay dee bandi cooki fin lay dee léegi nag kan mooy bandi bi ak kan moo nara dee ci cooki fin bi loolu mooy laaj bi ci diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko mais aussi loolu mooy laaj bi ci diggante aji Sarr ak Ousmane Sonko ñi naan Ousmane Sonko deful dara ñi naan Ousmane Sonko set na te ñun ñu gëm ni deful dara te set na parce que ba jusqu'à présent li ñuy jot suñu loxo di ko yëg ci ay xibaar mooy Ousmane Sonko mbir aji Sarr amuñu ci preuve parce que bu dee ni médecin ba yoroon mbir mi ci certificat médical capitaine Oumar Touré bi mu doyloo li xew ci dossier bi yëpp ak témoignage yi ci am lépp day setal Ousmane Sonko mais ñii seen yoon nekkul ci Ousmane sonk set nag setul ñii seen xam ci lan lan ne mooy def ko un procès moral woo Ousmane Sonko mu toog Adji Sarr toog ñi yàq deram di ko jéem a toroxal te lool li koy dëggal mooy procès Mame Mbaye Niang jour bi ñuy joxe verdict bi Ousmane Sonko teewul waaye lu ko procureur yekkul da kaa xamul. lu ko Maître El Hadji Diouf yekkul dakaa xamul mais Ousmane sonk fii la taxaw ne kii di juge am Diallo dafa dem ba jiiñ ko sax koo xam ne dafa tëppatiku maanaam ni mu ko traité ci liwam usman sonk dem ne bu ma jàkkaarloo nag moom dina wax leneen maanaam danoo egg ak moom ci foo xam ne Ousmane amatul droit di dellu ginnaaw mais ay nit tamit amatul droit di dellu ginnaaw parce que dan na ko yawa yawa xam nga yawa yawa daa am fi muy egg. mën a mën a rek moo fi ses te Ousmane xale yi dan na yow mais xale yi ne Ousmane yow tamit xale yooyu tamit taxawu Ousmane day am solo kenn waxul ñu taal kenn waxul ñu yàq kenn waxul ñu saaga kenn waxul ñu dóore mais ni mbir yi di doxee nii képp ku mu dal sa xel xamul lu xew <coughs> ndaxte ci Karim Wade dañ daan wax naan Macky Sall sañu ko sañu ko sañu ko Karim Wade musta mujj doon candidat ci Khalifa Sall sañu ko sañu ko sañu ko ñu dem ba rabat d'arrêt rabat d'arrêt ñu ne la rabat d'arrêt est suspensif mais fexe nan ba Khalifa nekkul candidat looloo tax bi ñu fexee ba xalifa nekkul candidat bi ñu demee ba jógee ci élection 2019 mais danoo def ay réformes wane ni ñoom sax liñ doon def ci xalifa Sall du yoon. règlement cinq bu ma juumul bu yow ci wàllu yoon ñu ne sa avocat da lay assister ñu seetal ci con sec te con sec ak xalifa ci reglement cinq boobule ñoom ñaar ñu bokk ci àtte mais teewul ban bëggee daan kii di xalifa Sall dañ kaa daan teg ko liñ koy teg parce que li leen yitteloon mooy mu baña bokk ci élection Karim Wade tamit la même chose loolu tamit moo nekk ci kii di Ousmane Sonko kon Ousmane. ak ñi muy àndal dafa laaj lii di taxawaay léegi nag taxawaay boobule daa am lu ci am solo mooy coalition Yewwi Askan Wi fa séenee dem ci dialogue dinaa ñëw ci Mimi Touré ak Ousmane ci kanam dialogue boobu ñu jëm ñu ne xalifa sàll dina dem waaw jërëjëf Modou ku dégg law be moo neex a jàngali pël Khalifa Sall dina dem ak du dem man ba jusqu'à preuve du contraire mooy waxuma ni Khalifa Sall dina dem waaye ku bëgg a dem la ndaxte nag bëgg a dem taxut a dem mën a dem mooy tax a dem loolu la Léopold Sédar doon wax ndaxte Khalifa Sall lu tax dialogue bi mu bëgg a dem déggoo lu mu wax Pape Alé mooy naa fexe ba doon candidat rek ak nu ma ko mën a doonee mooy kooku amul choix. moom dañ koy diri taamul fu ndongam di dal te pour pourquoi xalifa Sall war a mën a dem ci dialogue bi benn mooy xalifa moom problème am da ko waroon régler politiquement dem na ba régler tu ko politiquement parce que politiquement mooy mu fexewoon ba am doole bi Ousmane Sonko jëm xam na Ousmane Sonko man ànduma ci mu dem dialogue parce que Ousmane Sonko da am ci lu mu téye mooy dafa am askan mi dafa am mbooloo mi mais dafa am doole ji. maanaam rapport de force bi Ousmane Sonko moo mën gaa yi bu dul takk der du police di gendarmerie nga jël entre militant rek li nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko nekkul ci ginnaaw yi nekkul ci ginnaaw xalifa nekkul ci ginnaaw Karim kon Ousmane Sonko am na lu ko dooleel ba tax moom bu moom am na fu mu wéeru li naan ku amul foo wéeru dangay ngay de da ngay neex a bëmax xalifa Sall nag daa wéeruwul ci dara kon tey ji Khalifa Sall problème bi mu am kenn ko mën a mooy kii di Macky Sall. mooy mu dem waxtaan ak moom ci amnistie wala ñu dem waxtaanee ci article vingt neuf trente wala trente ñu xool ci code électoral bi nan lañuy euh, modifier article yooyu le ba du doona ci gàllankoor ci koo xam ne da laa teg yoon pour nga mën a doon élection loolu Sall benn war na mën a dem waxtaane ji loolu war na mën a dem waxtaane amnistie ndaxte ñi naan Khalifa di dem mooy yeewi askan wa ña fa ne ñoom ñëpp danoo ànd am ay problème mais bokkuñu problème ay nit nag bu ñu bokkul problème mënuñu bokk solution ay nit bu ñu bokkul feebar mënuñu bokk garab gu leen di faj xalifa ak Ousmane ko bokkuñu problème kon xalifa dem am na fu mu ko arrangé ndaxte day lijjanti boppam ndaxte bu doon xeex ak jàppante ak xuloo wala leneen ak leneen moo koy may mooy xalifa Sall du ko am benn amul mbooloo bi amul militant yi mais aussi du islam. parce que boo déggee mu wax ci Pape dangay xam ne kii kuddam jàmm la ràcc kii ci waxtaan lay la yaakaar ne li mu war a am ci la koy amee léegi nag waxtaan woowule am ay risque ndaxte ak président Macky Sall mun na la woo ci waxtaan ba nga ñëw mu ñëw di wax leneen wala mu woo la ba nga yegg si la nga bëggoon yëpp doo ko am maanaam dalay tàqaleeg say mbokk ba noppi te moom du la jariñ maanaam dalay woo ba ñëpp mere la nga ñëw li nga bëggoon doo ko am xool ko ci Karim Wade def nañ fi dialogue ñu Omar dem taxul Karim Wade doon candidat 2019 loolu bokk na ci li mu yàq ci PDS tey jii xalifa bu demoon tey ci dialogue ba dialogue bi jeex li mu bëgg amu ko mais xalifa mais day perte buubu perte ba kon dem ci dialogue bi amal na ko njariñ mais am na fu mu ko mën a yàqal ci wàllu politique teg ci confiance bi ñu amoon ak moom ci Yewwi Askan Wi confiance boobu day wàññeeku parce que nag mi xalifa di Malick Gakou di Déthié Fall du ku mënti doon ci coalition Yewwi Askan Wi li nga doon tey jii bu dee nii da ngaa suqaliku ci politique wala nga siggi Ousmane Sonko moo tax ñu waxata dund nag ñoom ñëpp danoo deewoon ci wàllu politique Ousmane Sonko mooy ki leen léegi nag dañuy loyal envers Ousmane Sonko ou pas loolu moo jara laaj parce que nag. Ousmane Sonko am na ay erreur yu mu def mooy ci élection locale ak législative Ousmane Sonko dama sentir ne dafa généré woon de trop ci Yewwi Askan Wi bari na ñu woteel Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko mii moo tax ñu woteel Yewwi du xalifa du keneen ñu waxante dëgg Ousmane Sonko moomu bi ñuy def investiture yi ci wàllu maire di ko def ci wàllu député mais Ousmane Sonko foqalewul looloo tax taxawu dakaar bu xalifa bari loolu ay ay maire ak ay député kon Ousmane Sonko gore woon na ci ban tollee ci Yewwi Askan Wi xool na intérêt général ndaxte bu xooloon intérêt passif maireu Géejawaay mu naam Ahmed dara du ko jiite bu xooloon intérêt passif est-ce que Abba dina doon député ca Ndar bu xooloon intérêt passif kase waxuma Yewwi de est-ce que Barthélemy Dias dina doon meeru Dakar pourtant Ousmane Sonko Ziguinchor la nekkoon mais ap après semaine bu mu def Ziguinchor li des ci campagne bi yëpp daf ko dem géej waaye ñëw ci ndakaar yokk gars yi doole. kon tey ji Yewwi Askan Wi bu nu amee li ñuy tiitaroo tey ji ci élection ci wàllu meer ak leneen ak leneen nan ko gërëmee Ousmane Sonko ndaxte nag bu mbaam duufee neexi tan bu mbaam duufee neexi tan te lu sotti nag am borom. mais am nay jamono fii ci élection locale yi lu fu waay di sumb am na ñoo xam ne certaines campagnes lu ñu doon wax no no no bu Sonko ñëwee sama gox ma gagné Abba Mbaye wax na ko bi ko Mansour Faye gagné ca Ndar la la wax daf la Sonko li nga def ci législative yi ci Ndar boo ko defoon ci locale yi man ma doon meeru Ndar kon ñoom xam nañ ni li ñu doon Ousmane Sonko moo leen ko def kon tey jii ba ci diwaanu Thiès Babacar Diop lan la liggéey ci wàllu politique ba mën a doon maire. parce que Ousmane Sonko ak Yewwi ñoo tax mais jëmmi Babacar Diop rek mënul doon meeru Thiès ndax amul mbooloo mi amul doole ji amul alal ji mais amul bayre bi mais nag waxuma xam-xam bi parce que jàngkat la tey bu ma doon lim tey ci gox yi bari bari bari bari bari bari bari bari ba ci Guy Marius Sagna doon député fële ca Ziguinchor Ousmane Sonko moo tax di nga nag wala fi dem ne ku la tax a gën say moroom bu ko yemale kenn kon ñoom bu nguur gi nekkee ci stratégie wu jéem a isoler Ousmane Sonko jëm ko ber xalifa Sall warul nangu loolu Gakou warul nangu loolu Déthié Fall warul nangu loolu parce que nag lépp lu metti Ousmane Sonko waaye yeewi ñoo ko teg duñ ko wax de waaye man dama koy wax parce que man faruma yeewi politique ma yor ma carte kenn mooy Ousmane Sonko tey jii mi ngi demlante ak Mame Mbaye mi ngi demlante ak Napel mi ngi demlante ak plainte fu mu mën ci dem mais tey Ousmane Sonko mu nekkoon député. ak di renta mbagg ba am ca assemblée nationale Ousmane Sonko dossier ci wàllu yoon yëpp kenn du ko ci woo ndax immunité am moo koy aar mooy malaanu kirlaayam mais seenu tuune moo tax Ousmane Sonko doonul député Déthié Fall yor fi élection wu Idrissa Seck ñu jox ko lii di li si yeewi ñu ne juum nañu ci ndakaaru jóge ci ndakaaru ñu ne juum nañu ci euh, liste bi ñu ne après nan changé ñu dugal xale bu amul ñaar fukki at maanaam Déthié Fall am expérience bi mu am ak rigueur bi mu war a am en tant que militaire ñu jox la nga ciy juum di ci juum di ci juum mais mandataires yi yeew yi lu dal yeew yi ñoo ko teg tey ji lu dal Ousmane Sonko ñoo ko teg tey ji Bassirou Diomaye Faye bu nekkoon député dina dugg kaso ak li teewul Ousmane Sonko malgré suppléants yi ñoo dem dem nañ ba diir mbagg waa Bennoo Bokk Yaakaar yi tey ji waa wàllu yi tey bu ñu dee dégg député ak maire Ousmane Sonko moo tax. ñoom ñëpp Ousmane Sonko liggéeyal la lool ci wàllu politique tey ji ñu ne nan dem làng ak Macky sàll mi leen di duma ak di xas ak di leen teere def seen réunion ca makkaanu PRP fu opposition bi tëllee mu duma yërëmu leen ci dara mosu leen a jox fulla musu leen a jox fayda musu leen a teral musu leen a bëgg mosu leen a defal dara jàpp seeni nit di tëj ci kaso bi ak di toroxal tey ji ñu ne nan dem matlaa ji ak Macky sàll waaye bàyyi Ousmane Sonko mu wéet loolu bu ko xel nangoo sax ngor da koy bañ di nga bu leen Mimi gën a gawe de ñoom dañuy bañ waaye waxuma ñu bañ rek te yam ci waaye danoo war a bañ ba pare bañ la Ousmane Sonko waaye li mu nguur gi bëgg isolé kii di Ousmane Sonko ñoom ñu ànd ci ak nguur gi dem naan dañuy jalo gi ñaata dialogue la fi Macky Sall woote ci réew mi dialogue yooyu balaa ñuy sumb beneen dialogue mais nanu xayma dialogue yooyu lan la jur lu dul ay compromis ak compromission ci politique mooy benn dialogue bi fexe nan bàyyi Karim Wade mu tukki beneen bi xalifa génn masaalik ak dugg nañ masaalik génn xalifa génn beneen bi topp mooy Idrissa Seck fekki na ko mais li yooyu yëpp lal la mooy buñ paree ci dialogue opposition bi day xaaj day xaaj léegi force bi F24 war a am wala Yewwi Askan ñu fexe ba tasaare ko te ñoom Ousmane Macky Sall mi leen woo ci dialogue buñ ko yaakaaree dee du leen jariñ ci dara ndaxte xol du bëgg du bañ ba pare di bëgg te lu waay bañoon daaw bu ko nangoo ren ay pexem jubul lu tax Macky sàll xaar ba dix mois dese ko ci réew mi mu ne nan toog waxtaan te tey jii waxtaan wi waroon doon na lay fexe ba troisième mandat du fi am parce que nag bu ñu waxee dëgg ak Ali gi li makki sàll bëggul ñu waxaale ko mooy Macky warta doon candidat pour man dialogue bi condition bi njëkk bi mooy Macky yow waroo doon candidat waroo doon candidat loolu lan war a lijjanti te Macky Sall logique bu mu nee boo ko déggoo El Hadj Assane Gueye nga xam ne i day doon candidat loolu la bëgg léegi nag F24 taxaw fa seenee jaamaar la moom jàkkaar la moom pour ñu tegaat réew mi ci yoon teg ko ci sart pour tas F24 pour tas yi ak leneen ak leneen ñu ne nanu def ab dialogue ñoom ñu mel ne ay débutants ci wàllu politique. waa ji diral diri di yóbbu abattoir nga xam ne boo fa eggee da lay rendi nga yëkkati buum bi jox ko ne ko yow ma yóbbu ma mais pour politique bu amul ay principe ak ay conviction fa lañ jëm man Idrissa Seck wuy ji ci dialogue du problème ci man parce que man dama jàpp ni idée ak Macky benn la PDS wuy ji dialogue man dama gëm ne PDS mu ci nekk opposition yàgg naa ko wax bari na ay xarit PDS yàgg nañ ma ci mere mais temps bi damay jox dëgg mu ci nekk opposition ndaxte lépp lu opposition bi teg ñoom ñu teggi ko. ca assemblée nationale ca leneen ak leneen kon tey jii bu PDS dem jalo gi bu mu leen bett xalifa dem jalo gi parce que xalifa bokkul ak gars yi problème mais dafa am lu Moussa Taye wax mooy troisième mandat pour man xalifa ak Macky bu ndee am problème foofu lay doonee foofu lay doon kon nanu am démocratie benn bi mooy ku mu neex na nga dem mais ñi demul tamit nan leen respecté parce que xam na lu tax demuñu parce que danoo xam kun ko séqal parce que ak mbong mbong lu rek ci lay dox mais nin bëgg a taxawoo Ousmane Sonko surtout nag mu dem ci mu jëm ci ñaari combat le 8 ak le 16 moment boobu tey jii pour man la wax ji dafa waroon a doon nan lay mobiliser woon nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko jàppale ko comme li waa m 2 defoon ci mars 2021 parce que foofu lañ toll ñu ngi ci cooki fin Ousmane Sonko fii la gën a soxla ku ko jàppale parce que ab combat boo koy mënee bu demee ba fa mu war a jeexee fa way way amee daaneel fa lay gën a mettee kon tey jii lañ ko war a gën a jàppale waaye nag ni nga ko bëgg a seetaane loolu aussi il faut ñu jëla wax Yewwi Askan danoo war a taxawu usman Sonko comme ni nga ko daan taxawu bu njëkk tey jii bu doon ni ay gor lan bu Macky Sall wootee Ousmane Sonko woote ñoom Sonko lan war a wuy ji ndaxte Sonko li mu leen defal Macky Sall defalu leen ko naam ñoom tamit am na lu ñu defal usman Sonko Macky Sall bu gëmoon dialogue gëm institution yi gëm ay réformes commission nationale de réforme des institutions bi mu ko jox Amadou Mahtar Mbow Amadou Mahtar Mbow mag moom mu war réew mi yëpp àndoon ci ak ñoom professeur Moussa Mbaye nekkoon ENDA bi ñëwee indi conclusion yi daf na dama ciy tànn lu ma neex. alors que Macky Sall bi ñu koy fal lan moo ko taxoon a jug li tax ñu fal ko bu ci taxawoon wallahi azim réew mi weesu na fii duñ toll ci mbiri mandat doo dégg tëj na nit jàpp na nit doo dégg mbiri justice mais bi ñëwee jox ko rapport da cee tànn lu ko neex ak lu ko arrangé boobu ci laa xam ne waa ji du dem beneen bi ci topp mooy Mimi Touré taxawaayam xamul tax ñu koy rafetlu mooy combat de principe la am ñu naan Mimi ak Macky ñoo ànd benn lañu Mimi ak lu fi mën a def fii moom politiquement erreur boo fi def rek ñu fayeku Mimi bu melee nii gars yi ànd ak moom ci nii bu melee neneen gaa yi def leneen loolu ñu naan Ousmane Sonko la lay défendre mbiri la la koy taxawoo mais tey jii boo xoolee con euh, configuration politique bi ak ni mu tëddee mais Ousmane Sonko ak Mimi danoo bokk lu ñu gëm mooy ànduñu ci troisième mandat ànduñu ci dialogue mais ànduñu ci xale yi ci kaso ñoom ñoo bokk ay position fi ñu taxaw te seen position leer na Mimi lu tax mu neex àndal ci ci jamono yi mooy li muy wax day leer mais xalifa Sall li muy wax leerul Idrissa li muy wax leerul keneen keneen li muy wax leerul Mimi li muy wax leer na mooy ànduma ci troisième mandat te nag Mimi bu nee ànduma ci dialogue te te Mimi gën leen a xam Macky mille 2012 ak tey jii jiite campagne am nekk premier ministre nekk ministre de la justice am nekk envoyé spécial am dama ko doon tooñ naan mi day dox yónnent doon ku loyal fu Macky Sall mës a am problème Mimi Touré ñëw taxaw ba liste bu mujj bi ci législative yi ñépp xamoon na ni Macky du mi Mimi ñëw jëngu ko Mimi moomu tey ji ñëw na leen maytu leen Macky Sall bu leen lang ak moom bu leen dem ak moom ci dialogue man bu ma la gënee xam El Hadj Modou Diouf nga ñëw di ma laaj Modou la man la maytu ko boo muusee doo maytu Modou ndax maa la gën a xam maytu mimi nee na nan maytu Macky nan maytu dialogue bi te mimi fii metti lay laal parce que Macky bëggul ko laal troisième mandat bëggul ko laal ci mii mimi dafa xam fan mooy metti ndaxte xam na lan mooy déranger Macky Sall te mimi Macky yabu ko Macky ku fi wax jug na jëm la lijjanti mais mës nga gis Macky Sall tontu kii di Mimi boo ko laajee ci Ousmane Sonko dina ci wax la mu xam Idi dina ci wax la mu xam Khalifa dina ci wax la mu xam Karim mais Mimi Touré mu ngeen dégg Macky taxaw di ci wax. parce que xamante nan loolu tax boo déggee booy cocher yi jug naan mimi mimi du affaire bu authentique ak leneen affaire bu authentique ak leneen di nga ñaari mag bu ñuy xuloo xale bu ci xamul dara dangay noppi ngay mu mag Macky man bu ma bokkoon APR duma ma ci wax duma ma ci saaga mimi du ma ko xas ndaxte mimi ba nit ñee jàng xuloo dafa dem jàng ji tontu te li mu toggaale dafa bare léegi nag mimi moom lu tax mu baax ci Ousmane Sonko Mimi am ko comme partenaire moo gën am ko comme adversaire maanaam Mimi mun na la bañ indil ay militant mun na la bañ indil leneen mais tey Ousmane Sonko mu nee na nee na mi ngi ci contrôle judiciaire mais la combat à à l'international bitim réew Mimi ku tubaab yi déglu la day làkk anglais américain yi te Mimi waxam day porter da am fu muy dal parce que nag Mimi bu dee wax ci Macky Sall xamul lu def muy am porté mooy fi mu jaar ak Macky moo tax loolu tax bu dee wax ci Macky ñëpp dañ ci bàyyi xel léegi wolof yi dañ na entre le pire et le mal il faut choisir le mal ah mimi même bu dee baaxul waaye am na fu mu baax ci taxawaay te li Sonko sumb nii Mimi Touré da cee baax parce que daa am foo xam ne Sonko mënu faa egg mënu faa dem te mënu kaa wax wolof yi nag Modou damay lébu benn baatu olof. mooy wala fi nee na mag am na loo xam ne mun koo waxal boppam waaye ku ko waxal mu jël Ousmane Sonko daa am loo xam ne mënu koo wax waaye bu ko Mimi waxalee mu jël kon Mimi baax na ci de ndaxte loolu tax ma tuddee ko euh, couple gañaant wala couple gagnant rek ci Mimi ak euh, kii di Ousmane Sonko bëggoon naa ñëwaat ci détenu yi parce que mais dinañ ci dikkaat incha allah di jéggalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di baalu àq ñëpp bu ñu juumee nañu baal ah. réew mi di fi ñaan jàmm ak salaam ah justice bi nekk ci yoon ñëpp tegu ci yoon waaye tamit ñi war a doon candidat yëpp doon ko ki warul doon candidat bañ kaa doon loolu rek mooy mooy indi jàmm ci réew mi di masawu Babacar ture waaw nee nañ am na contrôle judiciaire naga noonu Coro ñu ngi koy masawu Pape Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ñi ngi nuyu ñëpp di baalu ak ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant kon mun ngeen seetaan ci solution info TV. Euh, mën ngeen abonné aussi di partager bu baax a baax Omar Bun Khattab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi El Hadji Modou Diouf euh, ci machine bi mbokk yi di ñaanal ñëpp jàmm di nuy bu baax Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di ko ñaanal mu yàgg fi tawéer jaa ngeen jëf